Sonko mi ngi leen di nuyu président Sonko mi ngi leen di nuyu président Diomaye Faye mi ngi leen di nuyu nee na il est fier du peuple sénégalais il est fier de sa jeunesse multiplier la justice. Son corps même am na ñeenti jàngat yoo xam ni war na ko def benn bi mooy ndi dangay doylu Macky xamul luy doylu ñaareel bi Macky xamul luy sant sant askanam leneen li Macky Sall lenn rek la xam mooy ngeen taxaw wan ko doole Macky Sall Sénégal nee na non Sénégal du mooyu na la li may wax jeunesse bi nag ci turu Ousmane Sonko ci turu président Diomaye Faye yéen a ngi fàttaliku Sonko nee na focus focus focus focus focus focus Vive le Sénégal Vive la coalition Diomaye Faye Vive Ousmane Sonko Vive Diomaye Sonko libre Sonko libre Diomaye Faye libre